wala de wallahi dëgg la lu wóor la kon moo tax ma ne su ngeen wax man la ma ne du man moom la de moom la kon fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin la moo taxoon ci leen doon ah. waxe Samba Camara wax na fi léegi mhm. dañuy def laylatul katmiya mhm. foog naa ne ñun ñëpp ay fukki at ak juróom fukki at ak juróom benn gaajaa nga nee toog ñoom Malick Ndaw nga ne la toog Pape Lay la Fall Amadou Fall ak Cheikh Mbaye ñoom Sidi Samb ak Samba Camara fa tabarakallahu asal xaaliqin lépp ñoom ñoo bu ñu joxee ba ngay Pape Fall ne eh, <laughs> jox leen wàllu wàllu wàllu <laughs> tabarkalla waaw. yu la ñu ngay fàttali yu neex. waaw jamono la dafa macha allah xaal yu am solo la lay fàttali. yu la dama koy wax pour encourager xale yi rek wax leen ne ay xale lañu. Mhm. waaye ñoom at bi ñu toll ñun ba ñu fa tolloo. Mhm. dundatuñu woon sax lii. wallaahi dundatuñu woon sax lii. gis nga kii bi may jox wërd salaatul faatihi maa ngi am fukki at ak juróom-benn fukki at ak juróom-benn. ma koy laaj de muy bañ ma koy laaj wird muy bañ ba am bés ma jóge ci jàkk ji rek mu ne ma Abdou demal ko am naa njàpp mu ne ma demal yeesal ma ne ko am naa njàpp mu ne ma demal yeesal gis naa Seexu Tijaan nee na laa la jox at ak benn la ma jox benn tur ma sikkër ko mu ne ma woon ma 40 ans nga koy sikkër man ma am ñaar fukki at ak benn sikkër ko keroog la ma li jaasaar ñaar fukki at ak benn ci 40 jours laa ko liggéey 40 jours yëpp dama ko woor waxuma ko pour sama bopp déedéet subhanallah xale yi tax ma koy wax ak delloo ko njukkal moom mais ñun egguñu fenn ci yàlla subhanahu wa taala egguñu fenn waaw dañuy soog a tàmbali mais dama koy wax pour wax xale yi ne leen nañu jàpp nañu jàpp nañu jàpp keroog ba sama bàyyi gisee njëkkee gis téere bi ma bind sama turu yàlla yi dafa tiit. ma wax ma. parce que daf ma yónni rek ma ma ma gaaw dem wocc fa affaire ba ba ma demee naa def naa xay. Mhm. ma ñëw fekk sama papa téye téere bi dem ci Ousseyn Lo ne ko xale bi yëngu si kër teel na ci ma. pour wax la ne rek léeg-léeg nga bëgg a jaamu yàlla ñu naan xale du jaamu yàlla xale du def lii xale du def lii xale du nekk directeur. général. PDG. xale bu amul ñaar fukki at. waaw ñu ne xale bu amul ñaar fukki at nag du jaamu yàlla. lii ñu xale bu ndaw barki démboo Njaay ñu wane ko mu muuru di def émission religieuse ñëpp kontaan ci moom tey ñu dindi muuraay bi di ko def na émission wu rakkaaju yooyu waaw fu ñu jëm fu ñu jëm il faut ñu wax il faut ñu jëf il faut ñu wax il faut ñu jëf xam naa ne Ousmane dina ne bàyyi lay xamul daaneel kon ma daaneel <laughs> واو اللهم صل جرجف خل بموي وحمود جرجف جرجف جرجف واو واو تبارك الله فتبارك الله أسم الخالقين ماني ماني ماني جيجو من يب حال بلا يا ما برانسي داكور حال بلا ما برانسي ام رك نيانا دونك مان نيانا رك نيانا رك لي لي لا لاي واخ لا لاي واخ كوتي رك ام صلو ام بوب بي ميتي بوكو دار تي تي نياك نلا موتاخ ما بوب بي ميتي ak li mu liggéey diis li mu diis bopp métti métti boo xam ne benn copine bi mënu ko fay da fi leen rek mun a ah fi ne dañ bakar fer na ko ci ne dañuy sàllaat mu ngi fi de mais yooyu dafa nekk yu am solo yoo xam ne am ngeen ma moom dafa amoon fu ko la jëlee moom tey man sa naan waaye boo xam ne yéen ko ci bu leen denc seen bopp te xamu leen keneen maanaa naan xëy na bu ma toogee ba aas nangam boobu amul xataa yax dee kenn ko wax bu bu seen parce que ngeen so euh, bu dee yàlla jege koy laal ah, ah waaye moo gën nga xaar ba mu sori la ngay jéem rëccu nga ko jéem a uuti te doo ko am kon na ngeen góorgóorlu bu baax a baax a baax xam ne yàlla may na leen koo xam ni kii seen ngeen di seen yëpp baax yàlla euh, parce que mbir mi nekkul ci lu am ndigal am ngërëm moom am na ñaar yëpp am na ndigal am na ngërëm ku am ngërëm nag am ndigal kooku lu mu wax yàlla mu def lu mu jéem man ko moo tax yi ngeen di gis ngeen koy gis yëpp macha allah ngeen ciy teg lii réussir leneen leneen leneen ak leneen ak li ko wax bi ma naan ko ca ca ca ca taliba la jëm booba defe naa juróom-ñaari nit matuñu ko matuñu ko maa la jëm koy bu gaaw ñu xam ne dina génn jàkk ji leen ci mbedd mi ah, kon ñaata at la génn mbedd mi euh, jàkk ji ñëw ci mbedd mi te xamal bari na kon li ma leen a digal yéen mooy lañ ko daan wax di ko ko dig mu cee teg bëtam bu leen ko digee ngeen teg ci seen bët ci man kese rek même suñu waajur ci la bokk ala baa boobu daf ko daan wax lu ne di ko ñaanal di ko dig di dig ci moom parce que sa papa dafa mu téere boo xam ne daf ko teg ci na matoon sa téere bi réer complètement kenn gisatu may topp toog ba téere ba am nit na ma jaxasoo torop ma indi ko jox ko mu bind ko jël ay preuve ci ndey Safiya ñëw seen affaire école yooyu def ko ca pegg ba rafetal ko façon bu nga xam ni sa papa ba mu gisee téere ba dafa yóbbu ca kaw dafa jooy keroog ba ñëw mais ki ko bind xëdd lii peut être dox dafa moo tax sama téere bi génn ah kon loolu la mu xool appel ah, na góor gi la mu xool tere tere dañu ci mm-hmm. te nag moom bu la waxee benn bët bu set nga gis fukk mm-hmm. ila abatil abidin loolu ko yàlla may loolu ko yàlla mayoon nguur ko mayoon bu la waxee benn bis ngay gis yàlla xam bu la waxee benn rek mos na Dakar del kër Alaaji Souleymane Ndiaye fii si Jekko fekk mu ñëw mu taw si guddi taw bu rëy te booba Dakar mu doon jàmbat ndox kat gi ah oh, parce que rek mu taw taw bu mu ne dama garab bi ma borom ak garab yi rek wëcc leen ñu sën ngeen ñun ma dañoo mar ma ñaanal leen moom moo dig nag moom ki daan def lu mel dig lu te du yoon yoon kon jërëjëf jëf yal na yàlla yàggal ànd bi ñu jaxee asolillah mais ngeen góorgóorlu nit dafa am lu teg ci kanamam soxla ko waaw gis nga ñuy football gis nga def seen seen seen kanam ku ne bëgg bi

kon loolu yàlla ji fam na ko mbay laay jërëjëf conférence bi waxta gàmmu gi dag ci fa dag ci wax kan mooy Seydina Muhammad mooy koo xam ne lu mu la wax rek nga teg ci sa bët loolu la bàyyi laay wax nii li dafa saxal yonent ak Seydina Muhammad daf ni ko saxla la moo dundoon lii moo dundoon lii moo dundoon lii moo dundoon lii yëpp teg nañ ci sunu bët yëpp teg nañ ci sunu bët macha allah bu yàkkamtiwuloon dañ dégg kan mooy Seydina Muhammad dañ gën dégg yàlla ki xam yonent bi ne laa yantiqaa anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa ndeke yàlla dee ni ko léppam mu teg ko tey fii gis nga dafa waxoon ne dafa musal bi saaba yi rek ne yàlla filmé na ma adduna yëpp ci sama kanam seetaan naa mu ngi nii tey gis nga ko ku ku gëmuloo rek mu ngi nii tey fii ngay toog jàkkaarloo lépp ci adduna bi kon nag la nga waxoon la Baye Laye doon gën a développé di ko gën a leeral pour nit ñi gën ko xam xam boo xam ne xam bu rafet laa ci waxee waxee mooy wamandu ta ikk ma faqat utiyo xayran katiran yàlla ku may xam-xam ikk ma la cherche ko yàlla may dama ni yàlla na may naa la lu rëy Baye Laye li mu wax ku am na may yàlla yàlla dem kanam. amiin day jaay rasulillah tey day dem kanam waaw parce Euh, borom yitte moom chaque yàlla nee na wala taxaata insaan xaq la maa war a xor si wala naa la donc kon yitteem xam borom yitte la borom yitte nag tey daale si dafa tëral sëriñ mais bëgg Seydina Muhammad foo yem rek yaa fa yemal sa bopp buy sama ne ko mooy ñaan mooy kii euh, xaadim nee na ko yaa ngi ci xaar wax na dëgg ndax dina tudd dafa jege dafa wax ne ana dali sama ndakara nii yonent bi ne sooy wax ak man sooy wax ci man damay ñëw toog ci sa wet na wax ne la diglu moom mi doon wax yonent bi toog ci wetam nag te yonent bi ne te mu yéene ñu yiw yonent bi ne niyyatul mu'min axlaqu min amalihi kon la muy yéene ci yiw moom mi toogoon ak yonent bi dafa ko jox ndigalu alaasi baabu ndaw xaritam mu ñaan ñi fi toog ñëpp yàlla dina ko nangu ci dara waaw ñu ñaan ñu jox maam Ousmane Diène mu ci turu koñ bi ci turu famille bi yëpp yeewi leen gërëm leen xam naa ne bu doon ñaari baat la sax mu mu def ko incha allah ñu الذي بيده اليوم المعدنون

suñu diine ak suñu sofeel ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa yaakaar naa ne def nañ ko ci ay fànn yu bari ah. su fekkee ne dañu war a ñaax xale yi suñu góorlu yooyu yëpp def nañ ko ba pare kon lan moo des dafa man nii ñetti baat lañu war a ah. tëjee te li tax ñu di ko def mooy dama xam seen yéene ci man te yéene jooju tàmbalee ci kilifa yi su ma nee tàmbale ci kilifa yi mu ngi tàmbalee ci oustaz Ndaw jaar ci Ibrahima Diène ndax Ibrahima Diène moom moo ma def porte parole bu famille bi wante oustaz Ndaw dafa jàngal ñëpp ni ko Samba Camara waxee sànq ne dafa am lu mu ko jangal am lu mu jangal, bàyyi laay ñun tam dafa am lu mu jangal dafa am lu ñu ah té leen li koy firndeel moy li Ibrahima Diène doon wax daf ñu daan wax naan suñu wajur yi kenn mënu leen donn ku ci nek dafa am lo ci donn kon nak ñu ñu ngi sant yalla bu baaxa baax di sant ñepp nak di sant ñepp di ko tambali ci kay Ousmane Diène di ko jëmale ci adina bi yépp li tax ma ne ci adina bi yépp damay fekk ci bàyyi ci waxtanam tay

su ko defee lépp lu ma ci soxla rek mu ma a dem jëli jiwaat ko kon ñun ñu ngi gërëm àddina bi bàyyi wuñu kenn comme ni ko bàyyi laay waxee sànq ñu ngi tàmbale suñu teew wante bàyyi wuñu kenn ba ki nga xam ne kii sax mën na am xelam nekkul woon sax si ñëw ñun ñu ko ci boole ndax dañuy fekk ci waxtaan bi mu waxoon yëpp dañ koy dellu suñu borom comme suñu borom moo moo woote ñun dañ japp ni ñepp dinañ dugg si inshallah allah ci ni wala ci na wa ya lañ ko def nak ci mom ni mu ko bëggee kon ñetti baat yooyu benn bi moy alhamdullilah rabbil alamin Benen bi moy jëri def jëri def ku nekk war na ko nangu ndax ku fi ñëw ak ku fi ñëwul amal nañ la jërëjëf mag ñi dañ daan wax naan gis nga nit ki war na gërëm ba gërëm gi nga xam ne kii du ma ko jàpp sax noonu parce que man dama mais ni ko tubaab di waxee envie maanaam da ngay bëgg lenn ci yow amuloo ko nga gis ko ci keneen nga envie ko su ko defee muy ndi melokaan boo xam ne bii du rafet moo tax man dama naan noonu amul wante ki nga xam ne kii dafa sawarul ci sa mbir mu dox daf lay ñaax ci nga góorgóorlu kon amel nga ko ngërëm waaw kon ñu sant ñëpp beneen bi ñuy jeexale nag mooy ñaan yi fi ñaan yëpp dégg nañ ko wax nañu amin dama ne gis nga bàyyi laay même su ñaanul woon oustaz su ñaanul woon man damay jàpp ci wax di ñu wax ñoom sànq ne ñaan yi def nañ ko ba pare te insha allahu suñu borom bi nangu na waaw te lii may wax ni du ay feeru waxantu pour wax nii rek dama mës a dem Niger bi ma demee Niger ma koy suba ilimaan di tari alam na ma ñëw juma ñu tari alam na bi ñëwee ci séminaire bi ministre bi dama yow yaay ubbi ñaan man waaw mais kii moom lu muy wax nii ah ñu dellu si julli jumaa ba pare ñu nen man dëkk bi daal mu nekk dafa fonk mel leen pourtant suñu ñaanee dafay taw booba wàcceeguñu ci oto bi ñu jëlee woon juma may leen lii la ñuy mais li ma wax ñu tari ko lu simple dama leen ne ñu jàng Fatiha jàng alam nas jàng xudu walaahu jàng falaxi ak naas tëjee ci asalaatu ala nabi billaahi wallaahi tallaahi bi ñu duggee ci saab bi ñu laata génne taw am na taw am na. ndax nit ki dina am foo xam ne fii soo fay toll moom la bàyyi laay wax sànq ne nit su aaloo su ñaanee yàlla dafay nangu ndax aal du dara dul li mu doon wax sànq mooy connexion da nga connecté ak suñu borom bi mais soo connecté ci biir internet si ngay mën a jëfandikoo internet soo connecté tam ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam xamal ne connecté nga ci yàlla te doo ko ñaan mu ne ko allahumma salli ala Seydina Muhammadin wa sallim nga baal maa ko bu baax a baax waa ji waxoon rek ñu ne yéen seer ngeen da ngeen débranché ñu ne waaw dañoo débranché ci àdduna branché ci Sayyiduna Muhammad yéen ngeen débranché ci Sayyiduna Muhammad branché ci noosu àdduna waaw loolu la Ousmane di wax connexion bi seen waaw yàlla yàlla yàlla yàlla nu connecté nag waaw Ousmane yaa ngi ubbaat beneen jàmm quoi allahu akbar yéen cal Muhammad sallallahu alayhi wa aadama ci yàlla <laughs> dafay yéeg ak wàcc comme ni sa connexion bu réseau di yéegee di wàcc ni nga koy gisee mu yéeg di wàcc pour lan parce que xolu aadama yëpp dafa nekk ci diggante loxo ñaari borom ñaari loxo borom bi moo koy def nii ñaari baaraami borom bi ba tax mu daan ñaan moom sallallahu alayhi wa sallam neen yaa muqallibal qulub thabbit qulubana ala dawami dikrik mu ne al imaanu yasdaadu wa yanqusu dafay yokk di wàññeeku comme ni ko sa connexion réseau di defee xam naa bu ñu ko toppee gàmm gi suba la jëm parce que non li ma leen wax dama man dama koy dund damay damay def lépp lu ma def rek ma xool lan la ci lislaam am moo tax léeg-léeg ma mere nit sax parce que daf may def looloo xam ne lii du ma xam lan la ci lislaam am damay gaaw a neex parce que boobu ne xaw ma fu ma jëm rek damay gaaw a eggal taxul nag nu doon waliyu fekk ñuy taalibe bu sob di gëstu rek waxoon naa Oustaz Ndaw mu ñaan mais nee na naa ñaan baax tey su ma damay ñaan ba ñu ba julli tisbaar ñu soog toj jàng ndax daf ma defal lu ñuy wax damaana damaana xam nga damaana la yonent bi waxoon Seydina Cheikh ne ko bàyyi lépp loo jàppoon ak képp koo jàppoon ndax man bi man maay sa maam maay sa sëriñ fi gën ci sëriñ si kon nag bàyyi lépp da nga jàpp Seydina Cheikh la ko duus ma bëgg na ko de waye damay laaj garanti mu ne ko lan mu ne ko képp ku japp ci man dama bëgg ay condition yu ma lay teg soo ko ma d'accord ci li nga def mu wax yépp yonent bi d'accordal ko la la ma defal def ne mom, def ne ma ñaanal lo ñaan yalla dina ko nangu te li li ma fi mom suma duma ko gis mom gis góor ga laay gis ndeysaan ah. waaw moom ñaan la won leppum ñaan la won muy waxtaan ba wax la dara sax bo yabo bu musiba la jógal sangu ji wala nga wax ko mu ñaanal la nga def leppum ñaan la won te da wax mu ngi yalla suma borom rek la daan wax ku wax la ne koku mom dafa takkon ak boromam subhanahu wa taala yaronte bi mom waxatuñu ko parce que dafa daan gisee mom ci bes bi nangami yoon nangam yoon war ma ne man sëriñ lo loolu du ko fa lo asal waaw kon kon nyang gitu du nyang nyang nyang nañu kok lante amin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 ربنا نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الدنس امين يا رب اللهم ربنا اغسلنا بالماء والثلج والبرد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم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 يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى كناءة أحد من خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا اللهم آمين آمين يا رب اللهم صل على سيدنا محمد آمين آمين الفاتح لموعد قول خاتم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره صلاة خاصية الصلاة التي تبرز من أشهر أنوار ذلك الدين صلاة دائمات بدوام ملكك التي تستجيب بها عند وعند يا مجيب دعوة السائل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا مجيب دعوة السائلين لا إله إلا أنت سبحانك يا مجيب دعوة السائلين لا إله إلا أنت سبحانك وأن تغفر لنا ولوالدينا وذنوباتنا وبركتها وتنجنا بها من كل ما نحتشيه من شر الدنيا والآخرة والهمزات والهمزات الشماتات الشياطين والأعداء والأضداد برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين اللهم ربنا ما قدمت لنا من خير وشرعنا فيه بتوفيقك وتيسيرك فتممه لنا بأحسن الوجوه وأصوبها وأصفاها فإنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير حي يا قيوم فاصرف عنا يا حي يا قيوم فاصرف عنا يا حي آمين يا من قامت السماوات آمين يا من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا يا من هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون آمين اللهم آمين سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء آمين وإليه ترجعون آمين آمين اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد منا وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله آمين العظيم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر كل ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا وعملا صالحا وعملا صالحا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك امين امين يا رب العالمين وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك